yaa maalikal mulki man jalla al xawaadir jamii al waraa yaa haadiyal radaa mbokk taalibe mbokk soxna yi maa ngi leen di nuyu man soxna Kange di leen nuyu seen tuur ak seen sant maa di nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu soxna yi waa di jàllale ay kàddu soññee rekk Euh, maanaam ci xasida ren yi ni muy ni mu doxee euh, mbirum col yu jot yi waaw macha allah soxna yi def nañ col yu jot macha allah waaw def nañ ko nuñ ko nuñ ko bëggee woon noonu rek lañ ko bëggee woon def nañ ko waaw xanaa may jox soxna aji rek ndax daaw man ak soxna aji xumma ak soxna aji maam Penda ak soxna maam Kange ñoo ko taxaw woon daaw ñu ubbi woon kii bi bés bi daaw kon xanaa soxna aji rek moo fi teewut ren kon ñu jox ko soxna aji xumma ñu jox kàddu gi soxna aji xumma mu am lum ci jàllale rek waa ci turu jawrin waa kay jërë ngeen jëf aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba asalaamaaleykum mbokku taalibe yi ñu ngi leen di ziar baax a baax di ziare jëwriñ soxna Kange mi ma taxawal ndeysaan daa baax rek waaye kàddu yëpp mën na koo matale euh, di santaat yàlla bu baax nag bi mu ñu mayee fekke ak tal ba ñuy wéyalewaat li nga xamante ne euh, bésu sëriñ Touba la journée xasida te ku ne euh, ku ne xasida moom xam ne ku ku ne ku ku ne xasida rek xam njëriñ ji ci ne ak ngëne li ci nekk macha allah ndax neem Seexu Xaddim moo lu xaddiya man axaba képp koo xamante ne yaa ngi fonk sama xasida gi di ko teg fu tege rek am nga ci ngërëma suñu borom kon ki ko jàng moom xanaa waxee su ko waaye nag njëriñu xasida yi dafa am fu mu tegu ci jëmm doomu aadama yi ni ñuy comportons ni ñuy soloo ñu ñu ñu war a sax ci ndigal ak taalibe euh, di muuru jëmm yi benn bés la nekkul ne damaa war a wane sans bopp nekkul ne dangaa war a wane ni nga mel déedéet bés bi donte sax nekkul ne da ngay muur sa cër yi chaque jour fexeel bés bi nga xam ne bésu xasida lañ ko tuddee nga war maa sa jëmm sol lu jot nañuy nañuy bàyyi xel loolu te ñuy jëfe ndigal loolu te sëñ Tuubaa rek tax dañuy def te yàlla rek tax ndax lépp loo defal sëñ bi te sëñ bi képp tax nga def ko maanaam pay gi moom macha allah kon yàlla nañu Serigne tubaa jàppal di ziare jëwriñ sëñ son bu ak mbokk taal bi yëpp nag di ziare soxna aji yaay Fall bi ndeysaan mel dafa am tout tànk ren moo tax teewut di ko ñaan rek yàlla na ko yàlla may wér toog ba fekkee njëriñ tout tànk ak mboolem jullit ñu ngi tuub baax ci kàddu yi nag euh, di wax ne nañu nañu sax ci ak taalibe lu dul taalibe rek ak taalibe ko gën ñu ngi tuub baax ci kàddu yi nag jërë ngeen jëf